السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي أدنى مبكي جولي يب نغلن دي نيو زيارة دي أم بكتلول أكونتانتي دي أنا تغيين فيتي مدينة شيخ الإسلام alxaaji Ibrahima Niass fas yéene waajal bés bu mag a mag boo xam ne ñu ngi koy defal jëmm ju mag a mag di borom xam-xam bu mag di cheikh alxaaji Mohamed Zeynab ibnu cheikh alxaaji Abdoulaye Niass macha allah ñu ñëw nag ànd ak yéen fii tey fas yéene def appel bi ci teewaayu cheikh Mohamadou Arabi ibnu cheikh alxaaji Mohamed Zeynab ak rakam cheikh Ibrahim ibnu cheikh alxaaji Mohamed Zeynab ñu uutu fi seen mag di alxalifa cheikh Mohamadou Basir ibnu cheikh alxaaji Mohamed Zeynab al alama programme bi nag incha allah nii lay tëddee danañ jox kàddu ki nga xam ne mooy chef de village bu Kër Yoro Xoja muy Baye Serigne Aliou Diouf. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi fi teew di sant yàlla bu baax si bés bii nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee muy bésab ziara ma Maseyna bu sa Kër Yoro le 10 février bii di ñëw ñu ngi koy yëgal dëkk yi nga xam ne moo wër Kër Yoro yëpp. di ko yëgal commune Wakunguna di ko yëgal ki nga xam ne mooy njiital borom dëkk yi si Wakunguna yëpp di si teg commune Kër ma ba di woo commune Ndramé di woo commune Kër Ma Kër Madiabel di woo commune gent Kay di woo département Nioro di woo uma islamique bi yëpp ñu ngi leen di woo si bés boobu bés bu màgg boo xam ne baaxoon nañ di ko def suñu kilifa gu màgg boobu muy El Hadj Masseyna bu ziara alaaji ma seen bu ca kër Yoro Khoudia ñu ngi ciy di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Baye Serigne Aliou kontaan nañ ci kaddu yi ñu nga joxaat kaddu ki nga xamante ni mooy Cheikh Alhaji Abdullah ibnu Cheikh Alhaji Amar Khady Niass moom mu joxe kàddum oo waa tund woowu yëpp Serigne Daara borom xam-xam yi ak njabootu maam Alhaji Abdoulaye Niass. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi mawlaaya cheikh Mouhamadul Bachir alxalifa cheikh alhaj Mouhamad Zeynab ak mbooleem ay rakkam buñ leen nuyoo nuyu nañ mbooleem famille bi yëpp ah, su ko defee ñuy jëm ci bés boo xam ne bésu al alhaj Mouhamad Zeynab la moo waral tey suñ Euh, kaddu di jóg comme nañ ko daan defee di ci oo nag mbooleem koo xam ne yaa ci maam alaaji abdullahi al kabir euh, ak képp koo xam ne daal taalibe nga jokk ci moom ci banqaas bu mën a da ñu ngi lay ci oo ci bis boobu noonu le 10 février ca kër Yoro Xoja bàyyiwuñ nag kenn comme ni ngeen comme niñ leen daan ooyee ngeen di teew ñu ngi leen di oo ci bis boobu noonu ñu ñaan ci yàlla yàlla fekke lu ñu bis boobu noonu ci jàmm ñu def ko ci jàmm kom nañ ko daan defee euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di oo mbooleem taalibe mboolem fu julli nekk nag ñu ngi lay oo ci bis boobu noonu waaye nag rawatina famille Maam Alaaji Abdoulaye bi nga xam ne fa lañ xaju ñu leen ci oo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allah noonu la ñuy def rek euh, jox ki nga xam ne mooy Cheikh Seydi Arabi al oustaz Sall oustaz moom tam mu dugg ak ñun ci li nga xamante ne bi moo di programme alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد الأوائل والأواخر على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى قيامة الساعة مبكي برنامج بري بمعك بوبنا خمنة ممكن نندق سانكني وح مزيار الشيخ الحاج محمد زين بن ياس نواركو عمل لديس فبراير 2024 فلا تكرر يا رخاء إن شاء الله برنامج إن شاء الله نيلنكو بعترلي بنيو قيء دلنا فا dajale mbooleem daara yi nga xam ne mi ngi Kër Yoro ak yi war Kër Yoro te mën a ñëw jàng ñuy wàccee fa ay kaamil jox ko hadiya Cheikh El Hadj Mouhamad Zeynab ak njabootam ak mboolem tund waa Kër Yoro buñ génnee ci kaamil yooyu 14 heures incha allahu ñu dellu ci kër ya noppalu daal di xeewlu comme ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee buñ ci jógee ko 17 heures programme bi incha allahu taala ci lañ ko bëgg a commencé ñu ngi ko war a ubbee alquran ki nga xam ne moo ko baaxoo di ubbi muy Baye Alhaji Mouhamed Zeynabou Niass ñu gën koo xam ci Baye Alhaji alquran gannaaw bu noppee ci loolu ñu waajal ki nga xam ne mooy xalifa bi di xaadimul umma cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Ibrahim ñas bu yegsee ci tànt bi ñu dalal ko jox ko kàddu gannaaw buñ jógee ko ci loolu ñu waaj nag dugg ci conférence bi nga xam ne moom lañ fa war a amal ci bés boobu ki koy taxawee mooy ki ko taxawee woon daaw nga xam ne def na ko ci anamin bu rafet ba tax doyaluñ woon ñu ne ko woon tegal sa baaraam foofu li ngay wax neex nañu bu déwénee nga mottali ñu muy Cheikh Ahmed Boucar nekk di borom xam-xam bu mag ibnu sayda raxiya bintu cheikh ibrahim Niass moo ñu koy defal conférence boobu ki nga xam ne mooy modérateur bi ki ko daan modéré di oustaz ibrahima bi tey ba tey moo yoraat euh, kàddu googu noonu euh, ñi nga xam ne ñooy ñi fa war a yëkkati kàddu mooy ñi nga xam ne moom lañu war a yëkkati seen ni muy euh, chef de euh, borom dëkk kër a Xojo dana fa jël kàddu wala ki nga xam ne moo ko fay teewal su paree euh, Cheikh Mouhamad Khoureychi ibn Cheikh Ibrahim ñas am na fa kàddu représentant des jeunes de kër a Xojo ki nga xam ne moom mooy wax ci seen tour moom it am na fa kàddu su pare nag ñi nga xam ne ñooy autorités yi gouvernement bi yebal ñu aju ni ci mairie bi ñoom it danañ fa yëkkati kàddu suñ paree ñu jox suñ baay di suñ sëriñ Cheikh Seyd Mouhamad Arabi mu tontu leen su paree nag jotaay bi ñu jox ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh El Hadj Mouhamad Zeynabu muy Cheikh Mouhamadul Bachir ñas su paree ñelee nga xam ne ñoom laa waxoon am nañ fa kàddu muy autorité yi Cheikh Mouhamadul Arabi moom moo ma tudd leen moom mooy leen tontu su paree ñu jox Cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Seydi Aliou Cissé mu tëjal jotaay bi ci xatmul quran asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah jërëjëf cheikh Mouhamadou Arabi ci kàddu yu am solo yooyu ni ñu def rek mooy jox suñu baay di borom xam-xam alwaliyu di cheikh Ibrahim ibnu cheikh Alhaji Mohamed Zeynab moom da mu def appel jëmale ko ci muqaddam yi ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk yi àll yi wër foofu yëpp. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. amma baadu ñu ngi nuyuwaat Sénégal yëpp. wa adina bi surtout wa Medina bay di sant yalla ci teway gi nga xam ñu ko tew fi suñu kër dom mu Cheikh mustafa ibnu Cheikh al arab Niass waxtaan wi na waxtanu jam rek la moy lan ay soppe yu handi ci yalla bëgg dundal ci yalla ci la ñuy wax nga xam ne bés la boo xam ne bés bu ñu itteel la bu fonk la buñ bu ñu yàkkamte woon pour mu ñëw moom la ñuy waajal nii le 10 février ñu ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm yooyu na lépp luñ ci bëgg a def ci barke yonent bi ci barke borom ziyaara bi ci barke maam Alaaji Abdoulaye radiyallahu taala anhu ñu ngi yëgal xew-xew bii nag képp ko xam ne nga aju ci kër gi di taalibe Baay Ñas nga xam ne rek nga du nga yaakaar mom nga mom ngay dundu di o njabot ak Cheikh alhaj mohammed Zainab. yëpp képp ko aju ci ñom ko ñu lay wax ne may kenn ngant képp ko xam ne tundu tund kër nga bok ko xam ne nag nga bok mayuñ la ngant bëgg nañ la gis bëgg nañ laa faa gis nga teew fii boo waxuñ nga ñëw rek yónnee la ngay yónnee soxlawuñ loolu liñ bëgg mooy na jëmm yi teew bu jëmm yi teewee mag ñi dañuy wax ne Baye daana wax ne képp koo xam ne da bëgg ñu sédd la buñ ootee ñëwal waaye bu bu buñ ootee ziyaare wala nga ñu oote leneen nga daal di yëkkati sa àddi rek joxe kon boobaa bu ñu séddalee loo ci mën a bokk kon nag. may moo tax ma may ma kenn ngant koo xam ne daal julit nga taalibe baay nga yaa ngi aju Cheikh Alhaji Mouhamad Zeynabu wala ci njabootam maa ngi lay xoo ñëpp nag xam naa leen ku fi ku ñëwutit dana gis dana yow muy gisuma la ci ziyaar Kër Yoro bi kon nag mayuma kenn ngant ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw ngay borom dëkk ngay waxambaane boo xam ne yaa ngi aju ci dëkk kër gi ñu ngi lay oo bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla yóbbu ci bis ba ci jàmm ci barke yonent bi ci barke Cheikh Ibrahim xalifa bi nag ñu ngi koy tat ñu ngi koy teeru bu baax di ko tatagal di ko nekk di yàkkamti mu ñëw teew fii teew fii ci ñun ci Kër Yoro ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dafa ñu jàmm ci barke ci barke Baye barke Cheikh Tidiane ci barke Maam Alaaji Abdoulaye radiyallahu taala anhu bi jaahi rasulillahi sal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim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 yaa himmat cheikh uxduri lana bi hada almaxdari waltaatifi bi nadratin tati lana bi zafari salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy ak ñi ñuy déglu yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam mooy asalaamaaleykum taala wa barakaatu di ñaanal yàlla gannaaw buñ julee ci yonent bi ñu ngi ñaanal yàlla suñu sëriñ suñu wasila ci yàlla moolaana sayidi cheikh ahmad ibn cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu ñaanal itam xalifaam xaj abdullahi seydi muhammad radiallahu anhu di ci teg e, ki nga xam ne moo waral bés bi mooy borom ziyaara bi xaj muhammad zeynabu radiallahu anhu di ñaanal yàlla mu diri ngërmaandeem ak yokkate daraja e, ki nga xam ne ñun mooy suñ bunt ci ñooñ ñëpp cheikhuna wasilatuna ila rabbina maulana saaxibil faydati mawlana cheikh ibrahim ni seydi xaaj abdullahi radiallahu anhu ñu ngi nuyu xalifaam di xaadimul umma cheikh mahamadul maahi ni ñu ko waxee ñu ngi koy xaar ci bés bii di ko ci oo di ko tatagal ndax euh, bésam la gannaaw loolu ñu ngi nuyu itam seydi cheikh ahmad tijaani ibnu mawlana seydi alin siise mi nga xam ne bés bii moog ñu ko bokk nga xam ne mosu ko absenté ci taxawaayam ci joxe xam-xam ci joxe ay teraanga ak leneen leneen ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla mëtti dundam yàlla yokk ko wér naka nuyu itam ñu ngi ciy xaar mbokkam di rakam di di al mutahaddis rasmi bismil hadratil ibrahimiya Seydi Mouhamadul Mahi ibn Seydi Aliou Cissé moom itam ñu ngi koy xaar ci loolu moom itam moom it bi bésam la e, ñu ngi teew nag teewal suñu xalifa di Seydi wa Mawlaaya cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Hadj Mouhamad Zeynab nga xam ne mooy xalifa Hadj Mouhamad Zeynab ñu ngi ko uutu ci jotaay bi dafa am empêchement eh, naka noonu itam ñu ngi teewal rakkam Seydi Cheikh Ahmad Tidiane mu noona Cheikh Hadj Mouhamad Zeynab moom itam dafa am empêchement moo ko teree teew ñu ngi uutu ñooñu ñëpp leen ñaanal yàlla ñu di leen xamal nag ne bés bii eh, ñu ngi ko oote ci turu Hadj Mouhamad Zeynab muy borom xam-xam di kàngam bu mag ci lislaam nekkoon ko ci tariqa bi nekk ko ci fayda bi di koo xam ne man waxuma ne borom xam-xam la waaye ñi dund ak moom ci kër baayam yëpp te kiñ ci gën a miin gën koo xam ñun muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moo ko seddeel xam-xam moo ko seddeel xam-xam buñ ko tuddee mu ne ana xaaj Mouhamad Zeynab bi nga xam ne moo rawoon ñëpp ci xam-xam ne buñ suuxaloon mboolem téere yi mën na koo bindaat ci mo ci mokkalam gi te loolu mën nañ ci indi ay firnde yu bëree bëree bëri bu fekkoon ne du dañuy wax ci média يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم بلا يونت بسخ يالله شوفهم مونجك وقت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة يالله برم قام قمي دفع أم فم لنتك قنا أبوم تدي بهم تد ملاكي برم قام قمي رجتك موحد بنن لا يرفع الله الذين آمنوا والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم wala yéen a utul ilma darajaat nee na yàlla ci moom moo yëkkati darajaay borom xam-xam yi ndax moone euh, man maa yëkkati eh, ñi nga xam ne dañoo gëm way gëm julit jullit ñi moo yëkkati seen i daraja yëkkati darajaay borom xam-xam yi xaj Mahamad Zeynab wax naa ne ci borom xam-xam yooyu ci la te eh, ñëpp ko ko seedeel mu nekkoon secrétaire El Hadj Abdoulaye Niass bi bàyyam lu mat fanweeri at te ku ne xam na ne nekk secrétaire El Hadj du lu yomb lettre bi mamalaaji mujj a bind nga xam ne moo waa Mauritanie la ko bind awlaad daymaan fi ko alaaj Mouhamed Zeynab bindee fi mu leen ko bindee ak fi mamalaaji génnee àddina matut mois matut weer mamalaaji ko ne xam na ni meloon ci xam-xam ak ni mel ci ci dëggu ci diine ak ci ci ci taxawaay kooku ku nekk secrétaire am lu mat fanweeri at yoo xam ne mosulaa corrigé ci dara ku ne xam na ne borom xam-xam nga e duñ tudd mukk ñaar wala ñett ci kër El Hadj lu dut mu ngi ci njoloxtoon la loolu la ko yàlla defal mu teel a pare lool teel a mat ci lépp nag balaay balaay am fanweeri at wala fanweeri atam nangam li mboolem lu góor ñu mag ñi def def na ko euh, wattu na alquran bind kaamil du benn du ñaar ci loxoom sañ e, ci e, sañ ci dëkk gasteen dem makka tabax juma e, nit ñu baax ñi tudd ñëpp passé passe wuñ foofu jàngal ay boromi xam-xam yar leen ci yàlla euh, loolu ci la jeexal dundam yëpp e eh, ñi fi toog nii ñëpp njabootam lañ ay doomam lañ ay sëtam lañ ay wëllëreem lañ ñoo fi teew euh, bés bi nag gannaaw bu ñu ko tuddee xaaj Mouhamed Zeynabou wala fi dañuy wax ñu ne bokk gu ne am na xaritoo ki ñu ko tuddee mu doon kenn ci xaaj Mouhamed Zeynabou du ñaari jëmu benn jëmu lañ muy Cheikh Aboubacar Al Musanna ñu gën koo xam ci Baye Mbaye Niass mu nekkoon fële ci kër ma jibel ci nga xam ne sorewut ak fi alaaji Mouhamed Seyni bu dëkk seen diggante ñoom ñaar du passé ay 15 kilomètres ay 16 kilomètres mu nekkoon fa moom itam ci liggéeyal yàlla ci dimbale jaam yàlla yi omat leen jëmee ci yàlla kooku euh, doon mbokkam xaaj Mouhamed Seyni doon kenn ci moom doon doon doon ndey jooram doon léppam gannaaw bu ñu bokkee bàyyi ñoom ñaar euh, ñu wërbatiku nekk ay xarit nekk ay doomi ndey nekk ay wala nekk lépp seq lépp ñu jëflante lu baax Euh, Serigne Mbaye wax na ne daf daan wax mu ne radiyallahu anhu ne bàyyi sëriñam alaaj Mahamad Sëriñ mooy mbokkam mooy magam moom loolu noonu la tënkee dundam xam nga moom ni loolu koo xam ne yàllaa ko joxoon euh, fasaaxa lu muy wax ñaari baat wala ñett la koy tënk te dafay am njariñ Sëriñ Mbaye moomu nag moom lañ tëddee bés bii wax nañ ne dañoo wax ne kenn la woon ci alaaj Mahamad Sëriñ bu doon mbokkam doon xaritam te bàyyi radiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko sa mbokk ak sa xarit ku la ci sama mbokk yàlla nay sama xarit bon moom noonu la leen yàlla boole woon xaj Mamadou doon koo xam ne xaritu mboolem mbokk bi la woon dooy bàyyam yëpp dem baayam yëpp ay xaritam lañ woon ñoom ñëpp la buggoon bennook ñoom bokk ñoom kër maamaraay yi yëpp foofu dugg mën nañ laa wax taarix bu mu jëflanteeg kër googu ci lu rafet ci kër kër bokk te eh, sëriñ ci dañuy wax ñu ne eh, man sabatat wilaayatu man saxat wilaayatuhu wajabat ziyaaratuhu képp koo xam ne sax na ne waliyu yàlla nga euh, ziyaara la dafa war te aj Muhammad Zeynab bu kenn amul sikki ci ne waliyu yàlla la Baay radiyallahu anhu wax na ne aj Muhammad Zeynab bu mu ne mazharun min mazahiril xat bi tijaani yi feeñu waaye la ci feeñu waayu Cheikh Ahmad Tijaani yi wax na ci beneen risala ne ci lettre ne fépp fu mu teg tànkam yàlla dana ko barkeel eh bon nag ku mel noonu yaakaar naa ziyaare ko lu war la ndax ziyaare ko duñ ci jëlee dara lu may lu may njëriñ te yàlla da wax ci xadisul qudsi ne ne cofee la moom yàlla war na ñeexal ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla di jëkkaale ngir yàlla di ziyaarante ngir yàlla di jokkalante seeni alal ngir yàlla xaaj Mahamad Zari mu kenn la ci ñooñu bon ba tey ziyaara ko lu war la e, e ziyaara gi ñu koy ziyaara ak fàttaliku gi ñu koy fàttaliku du jëmmam la ñuy fàttaliku li ñuy fàttaliku mooy lan mooy mooy jikko yi nga xam ne moo newoon ci moom tey jikko yooyu yëpp ñu jëlee ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci moom la royaatee wàcc ci mbooleem ay xalifaam te xalifaam yi kenn jiitu ci borom xam ba yi nga xam ne al ulamaul aamiluuna al muxlisuuna lañ te xaaj Muhammad Zeynab bokkoon ci doon kenn ci ñooñu bon ba tey dellu di ko ziyaara di fàttaliku dundam di ko ay njàngaleem ak ay jaar-jaaram dafa war surtout ci jamono ji nga xam ne dégg ku ne gis na ni mel tey dégg nga Sénégal ndaw yi eh, ñun ñii ñëpp bëri nañ ay ay ay ay ay référence bëri nañ ay repère waaye ndax ñu ngi leen di repère woo loolu loolu mooy mooy problème fi ne moo tax eh, dañoo jotaay yi gaa bari na yi ñuy fas ci diine waaye dafa war a gën a bëri ndax jotaay yi leen di contribuer dañoo bari dañoo bëri lool te ñi koy fas ëpp ñu ay moyens ëpp ñu pexe ëpp ñu ay ay moyens de communication bon jotaay mel ni yii nii ñuy defal waliyu yàlla yi borom xam-xam yi nga xam ne ay royteef lañ lu mu bari war nañ koo xeeb ci réew mi ñu ngi woo nag ci jotaay bi euh, président de la république ñu ngi ko ci o ndax euh, liggéey yu mel nii di fàttaliku nit ñu baax ñi di jéem a delloo si ndaw ñi fàttali leen mag ñi nga xam ne ñoo fi newoon seen i jaar-jaar seeni i jëf yu baax dégg nga seen i jikko ak seen i melo lu jotaay bu nit mën a fas ci réew mi rek tey moom am na ci dara ndax jàmmi réew mi ak joxante loxo nit ñi ak jubook nit ñi loolu moom am na ñun am nañ ci dara waaye am na ci lu bare bare bari moom itam bon ñu ngi koy oo ci ci jotaay bii oo nañ ko ci daaw gisoon nañ fi ndawam gisoon nañ fi ndaw yónni woon na euh, Modou jaay Rahma bu ñëw représenté ko euh, ñu ngi bég ci loolu di ko di ko ooxaat ren itam di ko di ko di ko xaar moom ak gouvernement am ak ndawam rawante yi nga xam ne euh, ñoo dëkkee ci localité boobu ci département Nioro borom dëkk oo na leen du ma ci jaaraat te loolu daal e, gannaaw bu ñu gërëmee ñëpp sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla lim baaxoo woon ak ñun dañu ko defal ci bis bii ñi ngi sentu ci moom téléwu ko ñi ngi sentu ci moom lu ëpp loolu ci lutf ak ndimbal ak kattan ak mande ndax inna allaha la yugayiru maa bi qawmin xata yugayiru maa bi anfusihim la wax wa maa wa maa badal naa wa maa kaana allaahu mugayiran nicmatan anama ala qawmin xata yugayiru maa bi anfusihim ñu bu baax a baax di oo mboolem jullit ñi rawatina kër Alaaji Abdoulaye Niass niñ ko waxee di oo mboolem taalibe yi mboolem soppe ñu ngi oo Sénégal yëpp di oo waa Gàmbi nga xam ne coloré Alaaji la ñu woon euh, amoon na fa tànk lool amoon na taxawaay ci ndigali baayam ñu ngi bàyyiwuñ kenn ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, Cheikh Arabi ibnu Cheikh Alhaji Mouhamed Zeynab kaddu yi rafet na. oote bi rafet na kon mbokk yi mu ngi noonu ñu ngi oote bésu xam-xam ñu ngi oote bésu barke ñu ngi oote bésu mbokkoo ci yàlla muy bésu jëmm ju tedd muy Cheikh Alhaji Mohamed Zeynab dégg ngeen kàddu yi xam ne jib na fi wane nañ ne borom xam-xam la kon ku bëgg xam-xam dëggal sa tànk ca kër Yoro Xoja wax nañ ne ku amoon barke la ku bëgg barke demal ci kër Cheikh Alhaji Mohamed Zeynab waaye waxoon ne ku bëgg mbokk la te mënoon mbokk mën a mbokkoo ak i mbokkam kon képp ku bëgg a jàng ni ñuy mbokkoo ak i mbokku demal ci bés boobu tabarkàllah macha allah jaajëfal tam waa kër gi nga xam ne ñoom lañ parrainé ren muy cheikh alhaaji m cheikh euh, Seydi Aboubacar Nil Musanna muy maam cheikh Serigne mbay ñu gën koo xam ci Baye Mbaye tabarkallah macha allah kon nag bés baa ngoog bu ko kenn ratee asalaamaaleykum wa taala wa